mbokki jullit yi gannaaw bu ñu sante suñu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp tey ndokkeel jullit yépp nga xam ne ëllëg ki si biir kuñ ci woo boo sañoon wuyoo ab jullit yàlla noonu yàlla dimbali bu ñuy woo jullit ya nu bokk tax di sant yàlla mi nu may ak tal akuk fekke ba ñu mën a jooxe lu ëpp ab xaaj agun ci koor gi yàlla na ko yàlla nangu mu mel ne ñi ngi toll ci weer wu mag jamono ju sell muy bëccëg ak i guddi yoo xam ne la ca ab jaam mën a mànge ngoor ko suñ ko doon jaay du sañ a waxaale ndax du am njëgam jamono jooju nag buñ ne laa xaaj na xaaj duñ xaaj ñaari xaaj benn xaaj ba jàll nañ seet noom jàlle kenn ku ci nekk delluwaat ci boppam te xam ne àdduna noonu la doxee léppay wéy looy séentu bu xasee ba agsi ba nga xam bis ba rek jàll na daanaka dal nañu ci koor gi kenn ku nekk nag war naa mën a taxaw xoolaat xaaj bii jàll nu mu jàlle moo gën a xam ñépp boppam lépp loo ca xam ne ba mu koy def ba ñu tën ko fa fekk mu fas yéene jëmale ko kanam xam ne yoon waa nga noonee waaye lépp loo ci xam ne bëggut ko ko fa fekk bëggut ko nettali ji benn xaaj ba ci des na gaaw laf xët yee ubbiwaat weneen xët wu yees fas yéene bind mbind moo xam ne bu ñu naan jàngal ñépp dégg boo jàng sa bokk yépp ak sa sopp yépp seen xel dal kon bokk koo xam ne daa amoon càggante ci ab xolam ba xol ba tàmbalee xomaag walla bokk bakkanam faraw rëcc ko na ko jéem a dabi ndax lay wéy ma ngay wéy te du dellu si waat koor nag ay ngëneelam yàlla daal moo ko xam ku ñuy wax abi umamata abu umamata nee na ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg nga digal ma jëf joo xam ne su ma ko jëfee mën naa caa jaare tàbbi aljanna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jox naa la ko am ndax amul lenn lu gën a gaaw ci yóbbu nit aljanna lu dul koor nee na ma bàyyi ba mu amaatub diir ma dellusiwaat wax ko la ma ko waxoon mu wax ma la ma waxoon kon bokk koor nga noonu toll nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne weeru koor bu agsee ku ca dog bis boo xam ne bii amul ngànt lu sharia tudde ngànt ba may ko mu dog ca su wooraatoon li des ci àdduna sépp lu tax mu jot àdduna jëpp li ci des ci ay bis lu tax mu mën koo dabaat kon bokk mu fekk ngay dund te amug wér mën nga koo def te kenn mën na ko bañ a xam ci koor rek lañ masa jaamoo yàlla ñañ daan jaamu bu jëkk daanañ leen jaamoo nu nekk waaye ci koor daal lañ jël ci jaamu yàlla ndax li tax koor di wéral ragal yàlla nit ki yu bari la fàttali nañ ba tàyyi ne nit mën na dugg foo xam ne moom daal moo fa nekk moo ko yàlla waaye daal gisu fa jënd jëm gisu jëmu ci mu gis fa lu ñuy lekk ak lu ñuy naan xel mën a yar ci yàlla kat moo digle ne bëccëg bi bu ko kenn lekk bu ko kenn naan mu bàyyi fa lekk ak naan kon boo kuy woor mën naa am yaakaar ci ne moom mi ngi teg tànkam ci taxawul la ñaareel ba it topp ndigalul suñu borom la suñu borom buñ doon waxtaanee ñii wax ñëpp di wax ñii bind di bind lim defal nit te nit mënu ko am feneen lañuy bind dana jeex ñay bind dem ba jeex tàkk moo tax mu tënku ci alxuraan ne su ngeen doon lim xéewal yi leen yàlla xéewale du ngeen ko mën a lim ba mu àgg wa in tauddu ni'matallahi la tuxsuha kon boog ku mu fekk ngay dund am na ñu fekkoon te dund nekkatuñ fi ku mu fekk nga wér am na ñu fi nekk te wéruñu ñàkk wér dong moo dox seen diggante ak koor bu ndigalul yàlla li yembe ba yem ñi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram di seetal nit ñi seen yaram yi am na suñu wax ne bu koor gi ñëwee seen ab liggéey day wàññi ko ndax faj gu muy faj aw yaram ndax coq coq coq coq coq moom mënut a ànd ak lu wér waaye ñetteel ba it not bakkan la kenn mënut a topp ndigalul suñu borom di teg sa tànk taqwala te nootoo sa bakkan borom ndax sa bakkan day xëccoo ak lépp lu nuroo ndigal bakkan day xëccoog nit ki ndigal ndigal dinaa ko gaawal bala maa toxu ci keneen bakkan naa ko tey nga ne ba ci kanam tuuti teel na naaj na naaj wi tàng na ba jant bi soppar kon boog yi daje ci koor dafa bari day firndeel ragal yàlla nit ki di firnde nit ki teg gum tànk teg tànkam ci ndigali suñu borom yi waaye day teg tale nit ki ku not bakkanam a ngi nii waaye it lii mbokk mi doon fàttalante léegi yàlla na ko yàlla fay muy bisub xare Badr siiw na lool ci ne ci weeru koor la amewoon am nañu wooroon am na ñoo xam ne ku ne cib tukki cib tukki lañ nekkoon xamuñ dañuy dellu si waatam de waaye ña ko boole woon ak woor ak ña ko boole wutoon ak woor benn pas-pas bala ñaar yépp lañ maye waaye alxuraan dana wa an tasuumu xayrun lakum am na suñu buñ xasee ba woor duutuñ faste xànc ak morom ja xanaa seenum xel war naa dem ci waa Badar am na ñoo xam ne it dutuñ génn duñ gis jant bi xanaa foofa moom lu fiy tàng tàng foofa ko gën a tàng fuuf ba léegi si foofa gën a tàng Sénégal waaye it ya ca aju dafa bari kon koor waajaloon na ay jullit ñu def loo xam dañ naan munta am saa bu ñëwatee nag kenn ku ci nekk jàppal na yow mii buñ ne woon tey la jii da nga caa war a bokk ku ko jàppe noonu rek mu yomb ci moom loolu waaye ci koor it danañ ci gis ne dana boole aw nit lool ndax mbooloo dana toog am ku ne am leen barkeelu ñoom ñépp ñu ne damaa woorandoo bu dul weeru koor yi da nga koy gis ci am ne koore gàtt ngay da nga gis ñu xel li joxe kii ne damay bàyyi ba ngoon ndax yu teggin kii ne damay bàyyi ba ñu jul timis loolu soo yàggee dégg waxin da nga xam ne kii daa woor waaye damaa woor lay bañ a tudd ndax ku fàttaliku xadiisul gaar war ngaa xool fukki fan ak juróom yi weesu ci koor gi ak la tag natt sa bopp ak ya ko jiitu ndax yii weesu bis mën naa ñëw ma ñaan yàlla mu musal ma ci lu ma bëgg a mucc hadisul xaar na mu demee war mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo nettali ne moo wax ne te lu mu wax dëgg la kenn ku nekk léeg-léeg war nay xool lu mu defoon te yàlla tax nu mu ko defee woon te yàlla tax junj naa ne koor day dëggal ragal yàlla nit ki waaw kon ndax ragal yàlla mën naa ànd ak njistal waaw wala déet déedéet ndax ragal yàlla mën naa ànd ak aaw loo wax rek xuma safurlaa loo def rek bëgg nit ñi gis ko buñ ko gisee wax ko ñu jal ko mun a jàng ñaan ma nga ne moo ko def ndax loolu mën naa def taqwallah yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne am na ñett ñoo xam ne dañoo àndoon di dem bi ñuy dem ba jant so ñu lal panaan te wóoluwuñ ndànd fay fay ñu seen am lëm mu yaatu mel ni néeg ci aw doj ñu dox wutali bañ fa àggee mu mel ni néeg ñu daal di koy buub ba mu set wécc ñu lal taal am ngaañ ngelaw na way way way aw doj jóge fële wàcc ci bunt bi mel ni kubéer la ñu ne alhamdulilah rabbil alamin ginnaaw tëj nañ bunt bi xëy xëy yeewu defar ndékki gannaaw bu ñu jullee suba ba noppi bés bés doj bi ne kekk ndax dafa tëj bunt yi kenn ci ñoom ñoom ñett sax bu ñu àndee mënuñu ko yëngal waxuma laa parke ka ca magoon ne kenn ku nekk nag na mas a xool lu mu mas a def te yàlla rek tax mu def ci tawassul ba xam ne yàlla su fekkee mas na maa def nangam te nga nangu ko génn ma ci njàqare lii kenn ki jëkk a wax daf ne moom ay waajuram dañoo màggatoon lool màggat mu màggat mu tàmmaloon leen bala ñoo reer mu defar leen li ñuy wax moseel yi nga xam ne mag da cay jàpp ba ba ñuy sëdd la reer yàlla dogal nag bis ma di ko def joo gis ba bis sàngam mu génn yéex a ñëw fekk magam ñooñe màggatam yooyee nelaw ndax dañ leen a fàtte reer boole ca mu defar moseeli ba ba noppi di leen ko yët si fekk ñuy nelaw mu toog fa yor ko ba bët set wicc moo ne xissa bu ko niru mosoon naa am fii kuñ doon kuñ ne téel ma xer bii mu fanaanee taw tey mu téye ko ba ñu yeewu kër këri gone yi fanaanoon ca benn néeg ba ñoo yee mag na mu tàllal leen ko ñu daal di koy xéewloo mel ni ñu ngi ciy soog a jot mu ne nag yàlla su fekkee loola sa jëmm jaa taxoon ak xaqi wayjur yu ma doon topp doj wii teggi ko fii nu génn dem ci suñuy soxla doj wane kër kër na teg kenn ka ne moom ak mooy yàlla moo ko dëgmaloon moo ko dëgmal mu dem di ko sabablu ji bi mu koy sabablu sabablu mu të ba benn bis mu jàppandi kam ko doon séqal ne ko xool ba xam màkk nag yow a fi nekk mu xool ne ko mag yow doo nga fi nekk na gaaw mu ne ko am na ku ñu ñetteel de mu ne ko kumu mu ne ko yàlla mu ne yàlla yàlla mu ko tudd moo tax mu baax mu ne su fekkee yàlla loolee yaa taxoon ma baax dimbali ñu génn ñu ci xat-xat bi ñu nekk doj wane kër kër na teg waaye keneen ka moom moo gën a yéeme da doon liggéeyloo aw nit di leen fay fay ñépp ba mu des kenn kooko daal ne meeng gisatu ko mu fab la nga ko war na fayee jënd ca lu mu yeew yeewal ko ko fa loola di dox di dox di dox ba doon lu ne jóg bari lool ba xamatul limba nga naan diw daa bari alal diw daa bari barke boroom ne ñoxeet ne ko at sàngam liggéeyul laa te jotu woon jotowu ma woon a fay mu ne ko sa pegg kat màgg na fi léegi nga gis lépp yaa ko moom mu ne ko bu ma ñaawal waaye mu ne ko ñaawaluma la yaa ko moom sa alal la jëlal koo ko jël lépp mun a tocc mooy nag yàlla su fekkee loolee yàllaa tax ma defoon ko yaa taxoon ma def ko delloo ko àllam te ma woon naa koo miim wala mu yóbbu ko ñu yéeg ko wàcc rikk génn ñu ci xat-xat bi ñu nekk mu mel ne ponk la doxe sa gannaaw na yéex yéex doj wane ko puqat ñu génn dem seen yoon kon bokk kenn ku ci nekk la ñuy jëf na fexe ba yàlla daal tax bu mu ca ngistal bu mu ko wane koor nag neexut a ngistale waaye am na yu muy àndal yoo xam ne mënees na caa ngistal mënees na koo naw te su boobaa nag kenn ku nekk na natt bis bu mu toog boo xam ne mi ngi ci xat-xat yu metti mu xool ca gannaaw jëf ju mës a jëf te yàlla dong la ko seereeloon ba xam bu sottee mu xam ne yoon waa nga noonu yàlla rek mat a seereel jëf bu fekkee nag yàlla ni mu jegee ne ku ko woo mu wuyu la ku ko ñaan mu may la mu wax wax mu ne teg na xoolaat boppam xam ne yàlla lam lam waxoon ma nga ca fam nekkoon ma nga fa wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai ida daan kon ku ne ci weer wi ba mu xaaj na xool li wéy ba xam jëf na ca lool bis bu demee ba ne ci xat-xat bu ca ñaane yàlla yàlla gaaw ko wuyu ni mu wuyoo ñee yal noonu yàlla dafa dégg topp te musal ñu ci seytaane ki pakkam te bañ ñoo wan ba faw suñuy jëf bañ di ko gis ba di ko wan keneen yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin